bëgg créer le Macky Sall nationale mais mais ils sont ils ont intérêt à le faire parce que. Mhm. suñu ko mhm. les sénégalais en 2024, nous vingt confier les, je suis d'accord. ce qui voudrait dire que l'exécutif il sera obligé d'amener des lois euh, euh, li Ismaël Major des révisions consolidantes. donc l'exécutif sera obligé d'amener des lois consolidantes. Mhm. Or, si, si l'exécutif vous indé des lois pour Askan, mais c'est pas parce que opposition là nek que demay bagnal askan bi lo xamné ne njëriñam lay nek mhm. donc voilà le bénéfice foofu la wax ji wara tourner maintenant kan moy nek président assemblée nationale bëgg naa mu nekk ci opposition bi nan lay nekkee ak nan la nak lolu leader yi ñoy tok waxtaan seen bi mhm. mais man li munta d'accord moom moy euh, cette forme de pression. consistant à dire obliga da ngeen wara da ngeen wara porter allégeance wala da ngeen wara clarifier wala da ngeen wara on n'a plus rien à clarifier Ce ñu war a waxal que sénégalais sénégalais jox nañ ñu qu'ils sachent que si on ne tëddee on va les respecter dignement à l'Assemblée nationale C'est ce foofu nag lañ ñu war a xaar ndax on ñun dinañ ñëw raté mille sessions raté nangam que les populations soient regardantes sur ces choses-là on va les représenter suñ kéem kattan ak li li humainement nit mais le reste après il ay a la ay équilibre qu'il faudra trouver en toute responsabilité mais c'est pas man assemblée nationale nous euh, ne ko pas a wa Benno nous nañ ma indil ko xamné ne mun parce qu'il faudrait que nous regardions la carrière de l'individu est-ce que vous gisuñu Géejawaay mm-hmm. nommé euh, amuñ fi ay conseillers wàllu mm-hmm. biñ démé biñ démé pour la confection du bureau lu xew lan mo xew lan lañ def Ahmed Aïdara dañ ko nangul euh, commission euh, président première première kii nu mu tudd conseil yëpp dañ. première bu huitième wallu dafa def nii ak benn. benn waaw alors que ñoom ñaar ñoo waroon a ànd wallu dem ànd fee. que du loolu tax Théodore. léegi est-ce que loolu du loolu tax benn boo ko yaakaar. c'est la c'est la ñoom ñoo léegi yow maa yow maa yow. Hmm. buñ ma dóor la kuréel si bët. ñëw ne la baal ma te continuer làq sama loxo bi nii xamoo lu ma téye man la léegi kaay ñu ànd. Euh. tu fais tu as des doutes légitimes Tu mhm. nga légitimement poser la question est-ce que même ce soir, le subira donc c'est ça cest dire que nous avons exprimé, ni avons ko ñeek mal comprendre mhm. mais li am moy am nañ un cas d'école moy géejawaay gis nañ ñum démé ça sànnu ti dégg nga au niveau des instances suprêmes une grande condamnation conseil yoy biñ fait ça. dégg nga une grande condamnation des des instances euh, de de de leur coalition Mm. Non. Ça voudrait dire. juste que la population. Oui, mais la coalition. du, du, PDS. Quelle a été la réaction de la coalition Qu'est-ce qui a été dit en bas Donc, j'ai une bonne présomption pour Kounek. Mais les faits, quand même, sont têtus. Mais les faits sont têtus. Ils sont là. Euh, à Sénégal. Thierno beaucoup il y ira jusqu'en 2024. Moi, suñu suis au delà même de 2024 je suis suñu yéene moom mooy. Euh,